tey jii nag incha allahu sama mbokk ma bëggoon ñu jàng la nga xam ni booy génn sa moom ngay wax te rasulullahi daan ko wax te it digal ñu ko te mbir mu rëy daf caa nekk danaa la ko wax ginnaaw bu ma la jàngalee ñaan gi ba noppi yow sama mbokk déglul bu fekkee dangay bind bindal bu dee da ngay enregistré ñaan gi may wax saa booy génn sa te di ab jullit na ko wax ginnaaw ba nag dinaa la wax njëriñ gi ci gi mooy bismillahi tawakkaltu ala allahi la xawla wala quwata illa billahi ko bismillahi tawakkaltu ala allahi la xawla wala quwata illa billahi bismillahi tawakkaltu ala wala xawla wala quwata illa billah yow sama mbokk saa booy génn sa kër lii ma la wax na nga ko wax benn yoon nga génn sa kër yonentab yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama nee na soo ko waxee day am seytaane soo xam ni naroon naa ànd ak yow fa nga jëm seytaane soosa day dégg am malaaka di wax naan yow waa ji wax ñaan gi yàlla dana la fegal aw ay ay wala naroon a dal yàlla dana la ko fegal te yàlla dana la aar dana la sàmm te yàlla dana la gindi dana la jubal foo mën su ko defee nag seytaane soosa da koy dégg daa rus daa sëgg daa wëlbatiku dem feneen day gis nag beneen seytaane ni ko waa jële day kenn mënul ci moom dara ndax yàlla dana ko gindi ba su tey yàlla dana ko fegal aw ay ba su te yàlla dana ko sàmm dana ko aar kon nañ dem wari keneen allahu akbar mbokkum jullit lii ma la wax néew na ci ñun ñu koy wax bu nu génn sunu kër ñenn ñi dañ koy fàtte ñenn ñi dañ koo jàngul ñenn ñi nag dañ koy sàggane sax waaye jarul sàggane day ndax garanti rasulullahi la te yàlla waxoon ni rasulullahi wa ma yantiqu an il hawa du wax mukk ci bànneexu ba kanam lu mu wax rek boroom baa ko ko loo te lu mu la garantil moom yàllaa ko garanti kon nag ñaan gi soo ko waxee booy génn sa kër am malaaka day taxaw mu ni yow day aar nañu la fegal nañ la lépp luy aw ay du la dal te danañu la sàmm ba su tey danañu la aar te it gindiku nga danañu la gindi ci lépp looy def bu ko defee cheytaane sa naroon a ànd ak yow day sëgg daa di dem ci beneen moroomu cheytaaneem ni ko waa jële day kenn mënul ci moom dara tey ndax yàlla gindi na ko ba sëb tey yàlla sàmm na ko ba sëb aar ko yàlla fegal na ko lépp luy aw ay kon dara du ko dal xanaa jàmm rek kon sama mbokk bul sàggane ñaan gi mukk booy génn sakar kër ma baamtuwaat ko beneen yoon bismillahi tawakkaltu ala wala xawla wala quwata illa billah ma baamtuwaat bismillahi tawakkaltu ala wala xawla wala quwwata illa billah kon nag sama mbokk lii mooy ñaan bi nga xam ni moom la ñuy ñaan bu ñu génn sunu kër buñ ko sàggane mukk buñ ko sàggane ndax fu nu nekk ci àdduna ñu ngi fa nekk ak noon ba muy seytaane di ànd ak ñun di nu yàqal di ànd ak ñun di nu jaxaseek yàlla di ànd ak ñun di nu yóbbu ci mbugalum yàlla di ànd ak ñun di nu yóbbu ci merum yàlla di ànd ak ñun di dugg ci sunu njaboot ak sunuy doom ak sunuy soxna yonentab yàlla bu baax bii nag ni la jàngal ñaan lii booy génn sa kër su boobaa dey yàlla dana la aar sàmm la fegal la lépp luy aw ay ba noppi nag gindi la seytaane ruus ndax du man ci yow dara kon nag jaruta sàggane nañu koy def maa ngi tàllal samay loxo bur yàlla di ko ñaan mu defal ñu xéewaluk àdduna ak xéewaluk ëllëg yowmal qiyaamati di ko ñaan mu musal ñu ci seytaane defal ñu tawfiq waaye nag defal ko mboolem jullit assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.